gaa yi rang sa bi barang drapeau chef de l'état ren mbuur lay amee dëkkub laa lion de lions borom petite ko ragalul loolu waaw 2019 fi la amee woon ñu dellu si waat 2024 delloo mbattu sa ndaala ak président Maysa Ndiaye tout est possible doomu petite côte bi nee naa la gàccaaloo làmb gàccaaloo petite côte ah tubaar fakala macha allah seeli pël ah di ko ñaanal jàmm ak ñu équipe bi mu àndal muy président Bira ak sunu papa Manga de mi nga xam ne moo jiitee lutte san frappe ñu koy kontaane bu baax doomu Joal Fadiouth bi dama naan lépp petite côte la ba tax na programme bi nii la fas yéenee tëddee ndeysaan ndax nee naa leen mercredi bi nii arrivé mooy arbitre yeeg technicien yeeg ñoom seen ah def seen i mise à place xool affaire yi ñu ko war a doxalee hmm, jeudi bi suba ndeysaan arrivé installation délégation raison yi lay doon ak équipe yeeg ah pesage yeeg tirage bi macha allah ah ñu xool pool bi pool yi nu muy demee individuel yi ñoom seen ah. vendredi bi ndeysaan ah tubaar fa kàlla macha allah si la compétition yi di commencé mais ren dafa am changement changement bi nag mooy compétition xale yi ndaw yi ak jigéen ñi. Euh, si suba gi lay am diggante 9h eh, jàpp midi muy vendredi bi ak samdi bi dimanche bi nag mooy doon collective bi yëpp si ngoon gi lay doon mais bu ko defee nag compétition xale yi jigéen ñi ak góor yi suba gi lay doon diggante 9h 12h ngoon gi tamit 16h30 hmm, ba vingt h 20 nekk compétition li nga xam ne mooy par équipe bi ah bu ko defee ñu dem ba mu des dul xëccoo troisième place ak quatrième place ak première ak deuxième ñu daal di ka fay yemale ah bu ñëwee tamit si samedi bi ñu def compétition individuelle fidèles yi ah comme d'habitude animation yaa Ndeye Fatou Mbayang Loum ak ki nga xam mooy Momo Ngom le digne héritier de son père kon gars yi bu ko kenn tardé drapeau chef ci Mbour waa Mbour ni ngeen génnee en masse ah, ba stade bi kenn amul foo teg sa tànk loolu lañ bëggee ren tamit ngeen génnal en masse ñu xam ni làmb Mbour dafa bokk ci làmb li Ousmane Dieng Jordan ma ni comme ni ko euh, le grand champion Ousmane Dieng Jordan di waxee làmb bu dingootee ba dingoot doomu Petite Côte day des di wax champion yi si Petite Côte bi yëpp lu si mel ni tête bi mm-hmm. muy Serigne Ousmane Diop Bombardier bu la fi kenn jiitu ama seen nag ñëpp xamee nañ ko dara drapeau Seydou Dame mu ñëw yëngal ambiance te jugee na seen ndam lu rëy kon dinañ ko fi am nañ yàqi ni dinañ ko fi gis gis nañ daaw yéen ñëpp ngeen def en masse Eric Favre moo leen fa indi xam na ni fa demee mais dañoo bëgg ngeen xam ni lii mooy feetu làmb mi drapeau chef de l'État mbër mu nekk waroo xaar sax ku lay jox invitation wala ku lay woo rawatina champion yi si petite côte bi yëpp nag bàyyiwuñ kenn ancien gloire yi ñëpp bàyyiwuñ kenn bu ñu tuddee tur rek mën nañoo juum wala du ñu matale wala mën nañoo ba ñu juum tamit mais dañ dul mën a matale koo ku déggul turam yaakaar ni bokku ci mais champion bu nekk mu si biir petite côte ko dalee si Bombardier ba si ki si gën a ah ba si ki si gën a ndaw ñëpp ñu ngi leen di woo fii nii ah si mbuur muy ñetti fan yoo xam ne nii vendredi lay doon samedi ak dimanche yoo xam ne nii feetu làmb la muy drapeau chef de l'état président de la république sax Petite Côte la dëkk ndax njagañaaw la dëkk te njagañaaw ci mbuur la bokk kon dama ni drapeau chef de l'état ren daa war a neex ah ministre de sports su ma juumul tamit zawal la dëkk kon dafa war a saf dafa war a neex drapeau Sénégal waa région de Thiès war nañoo am équipement baax ndax li ngeen am si ay autorité waa fakkaal la allah xeetu làmb la nañ xam ne suñu cosaan la ak suñu aada gars yi tamit ñu ñëw si discipline ak yar ak teggin ah def ko si fair play que le meilleur di ñaan yàlla nag eh sama gars yi de Thiès laa dëkk de di ñaan yàlla ah région de Thiès laa dëkk ah Lamyn TV booy Fatick xamal ma xam général borom kaw la xamal ma xam bu den dof ah, o Finger não é vegano.